changement bi nañ ko nañ ko foogal si moom si si ayam dañ mun noonu waaye gis nañu dëkk bi tey tey la gën a salte mm. mm. lu bari loo xam ne ba tey foo dem tey boo xoolee ñu fi jaar si kaw tëri bi di jaar ñu jaar suuf ndax suuf ndox la ak mbal ak mbal bu sal si kaw tëri bi dafa oto mën a jaar fiir leen feneen quartier boo dem tamit dafa lëndëm këriis am amul amul liggéey maire la liggéey état moo ko def kon maire moo war génn wuti ay moyens leeral dëkk bi setal dëkk bi ndax dëkk bi moom bu amul ak set mën nañu mën naa dem ba feeñ seen santé te loolu baaxut gis nga élèves yi te salte bi dañ lëndamaay bi dañ waaw maanaam Malick Fall da ñun man mii bokk naa ci ñu nga xam ne doon naa wax sax te taxul lu mbokk jotaay lu lu yàgg mm-hmm. doon naa wax ne leen nit ki amul nit ki mën ngaa gën say mbokk waaye mënoo génn say mbokk mm-hmm. te Malick Fall mokk la dëkk bi la dëkk yàgg naa bëgg ci dëkk bi nag am yéene ci dëkk bi am ci yéene ju rafet bëgg a liggéey dëkk bi amul moyen lay moyen nag mooy ñu bëgg ko ñun ndax kat am naa yaakaar ci ne kenn du jóge ci àll bi wala jóge feneen ñëw di ñu liggéeyal suuf dëkk bu ñun ñoo koy liggéey gannaaw nag moom bu doon tey am mbaar mi ngi ko fi jéem mu ngi fi jéem dara mm. bëgg dëkk bi avancé di jéem pour di jéem pour ñu defaral ñu tëli yi mhm. defaral ñu marché yi defaral ñu dëkk bi yokk ndox yi defaral ñu courant bi du ñu liggéey moom lépp loo xam ne investir la ci Jurbel rek baax na mhm. leen rek laa ci xalaatoon loo xam ne mhm. maanaam lii ñuy wax Oisir man dama dama ne bu ma ko teeloon a dégg ci moom ci man dama ko naan déedéet def ko marché commercial bu gën a mag def ko ay étage ndax man mii bu doon kon kon lu mu néew néew danaa ko wutiwaat place